comme baaxul baaxul comme comme comme jàpp si rek. waaw non xoolal image image moo tax image dafa la waaw. Come on, come on. préparé pour ci lamb ji xale bi war a ak Forza. Fara def bés bu ne ci lamb def combat bu ne el moo coow bari na foofu coow li Fara mooy waaye génn moo war a bari température daa tàng daa tàng

git bırak içeri git. Bırak içeri git. Bırak içeri ay benn xale benn xale ñëwal gaaw dawal gaaw fase xale yi nii lii doo xam après ñoom bu ñuy def